maa ngi lay bu baax monsieur le ministre du budget monsieur le ministre du travail ak say collaborateurs yéen ñëpp maa ngi leen bu baax di leen dalal jàmm euh, di nuyu les honorables députés yi fi nekk di nuyu euh, ñëpp ñi ñuy seetaan à travers les médias euh, dina madame madame la ministre maa ngi lay féliciter avant tout ci sa nomination bi di la ñaanal yàlla sa mission bi yal na ko réussir ci jàmm ak salaam di la wax aussi ne que man maa représenté département Ziguinchor te di la wax ne que yóbbante waa jigéenu Ziguinchor mooy dañu bëgg en premier lieu nga wàcc sur le terrain ndax sa prédécesseur malheureusement bu ñu ko joxoon poste bi yaa ko fa remplacé mosul wàcc benn yoon sur le terrain te Ziguinchor ñëpp xam nañu ko région stratégique la euh, avec beaucoup de ressources donc tey jigéen naa ngi foofu am nañu ay jafe-jafe mais gis ñu tey si kuñ koy jooytu kon nag tey daan leen gënal bu ñu toogee de temps en temps ñu gis ministre bi wàcc di xool lan la ñuy def si sur le terrain euh, daf leen alléger les travaux euh, dina wax na ko aussi dañuy soxla financement madame madame la ministre financement formation accompagnement surtout en matériel euh, euh, ba mu am suivi parce que loolu mooy manqué la plupart dañ leen di former ñu jox leen financement yu ndaw du ñu am accompagnement du am suivi loolu mooy waral lépp li ngeen fi li ngeen joxe comme financement après day nekkaat zéro te yaakaar naa euh, seen président du du du looloo ko tax a jóg ak yooyu si cadre santé bi avant loolu mooy wax si bourse familiale bi waxoon naa ko fi nee naa leen Ziguinchor gisul boppam si bourse familiale madame la madame la ministre da ngay dem si si bourse familiale dañ ko politiser te yaakaar naa ak yow dénk nañ la ko tey yaakaar loolu duñ ko mën a dindi mooy lan da ngay dem si benn famille dans une yu recevoir bourse familiale te loolu sa anormal di nga gis euh, papa jël ko tante jël ko yumpa jël ko te alors que loolu bourse familiale bu ñu wax bourse familiale yaakaar naa moo war a gën a tax ñu ne bourse familiale ndax ñooñu amuñu ko leen jàppale conseil boursifonnière dama yaakaar ne ñooñu ñoo ko war a gën a yelloo mais tey ñooñu lañ ko privé tay ñu dé ko ñu nga xam ne yelloo ñu ko ñu jox leen boursifonnière bi te yaaka na tay sa sa sa sa nomination bi dina réparé lolu ci ci ci bu soobé suñu borom euh may wax aussi ñu ñëw si côté santé bi madame madame la ministre euh dama bëggoon na nek tay suma ma na nek en parfaite collaboration avec le ministre de la santé moy walu seni bi ndax xam nga ne walu seni bi actuellement Casamance dafa amone ñi xamné dama demone parce que problème solo xeex d' accessibilité mais ma lay ñaan tey ñooñu boo leen mën a jàppale am micro jardinage dina leen gën a soxal soxla nañu aussi ay forage ñu soxla aussi xam nga eau potable yi lumière surtout ñoom loolu mooy gën a doon seen seen problème mooy ñu nekk milieu rural bi ndax xale tey boo ne xale dama jàng gisul courant gisul dara day métti donc côté maa ngi lay nga leen bu baax a baax mooy ñëw encore di wax ne que financement yi madame la le ministre ñu ngi koy jotee euh, ñi nga xam ne dañ koy jot ñoo si xaw bénéficié nee nañu ay deux euh, cent cinquante mille liggéey jox ko financement ba nga xam ne mooy mooy tax ñu ne financement la bu doon ay cinq cent mille jëlale ko un million nga xam ne wala ba euh, cinq millions nga xam ne ñu si liggéey ñu ngi bon bon ko ba pare taux de remboursement allégé la ba nga xam ne peut être nañ si gis seen bopp yéen ñu ngi leen delloo ñu ngi wax aussi ne que DRS yi ñëwoon na fa mais après finalement ay moomoo la mujj jur ndax boo bu ñu kiiyee ñu ne dafa plafonné euh, somme bi nga soxla du nga ko mën a jox a nekk femme femme transformatrice bi moom mooy taxi yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy jëfandikoo dañu bëggoon nga nga facilité faciliter leen loolu ba nga xam ne ñoom ñu mën a gën bokk si participer si kii salon de l' agriculture nga xam ne day am au niveau international parce chaque fois dañuy ne dañu financé mais a ñu jógee ñuy def aussi accompagnement tel que les moulins congélateurs les de cuisine yooyu aussi les femmes de Ziguinchor vraiment soxla nañ ko di wax aussi dégg naa nga petite enfance ma la si félicité dégg naa si sa biir bi si fond bi dans le fond du rapport wax nga ne di nga visiter Ziguinchor ma la si kii bu baax a baax léegi di la wax ne petite enfance boobu daf ñu soxal ndax ñun ñii si biir milieu bi man en tant que adjoint chargé de la petite enfance de la commune de Ziguinchor wax dëgg yàlla tout récemment alloué nañu benn somme de 16 millions ba nga xam ne le maire de Ziguinchor daf ko def pour la petite enfance ma lay ne ma nga di la ñaan nga nekk en parfaite collaboration avec les maires ndax tey moo lay gën a yombalal sa liggéey ndax ñoom itam c' est dans le même sens que la ñuy liggéey ak yow di la ñaan fa nga yëg di la wax aussi nga jël les handicapés am naa ko ay jigéen handicapés yu nekk Ziguinchor Ziguinchor vraiment soxla nañu nga jàppale leen parce que amuñu dara vraiment ñu leen koy maa lay gërëm la parole à Baran Fatma Mbodj Barane Fofana se prépare elle est absente la parole à Barane Fofana Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, euh, nous